ma ñëw nag fekk ñu fi ay jafe-jafe yu xaw a doy waar ndax ñun lii eh, moom lañ gën bëgg sax dugg ci sañcaan yi xam sañcaan yi seen i jafe-jafe xam sañcaan yi seen i bëgg-bëgg dox ci ci loolu la moo moo gën nekk suñ bëgg-bëgg moo gën a nekk bëgg-bëgg bari président ndax président ku bàyyi xel sañcaan la sax su dañuy wax ne sañcaan yi xool jafe-jafe sañcaan yi ndax xam na seen coono ndax dañoo jóge ci dëkk ñu dëkk bi fi ngeen nekk amul courant marché jegewu fi te ay jàmbaan ngeen ay liggéeykat ngeen fi ngeen nekkoon da ngeen fanaan bay fii kenn waxam ne Touba suuf si du ba ngeen mën di bay di xëy di yendu ci marché bi bàyyi seenu njaboot loolu lu métti la lu métti président la bara bi nu président joxe ngeen dem taxaw xam seen jafe ngeen wax ñu ko ñu taxaw ci man li wax lépp la dégg naa ko muy courant bi ngeen jàmbat ak machine ak ñàkk liggéey ak financement yi loolu moom luy neex président la te bu ko président déggee lu yomb la ci moom ndax année mi année sociale la jigéen ñi ñoo ko moom te président ku bëgg ji doole jigéen ñi la ku bëgg jigéen ñi tamit am liggéey kon liggéey nag bu soobee yàlla jàpp baax man mu duggee ci carte sama yaram dafa daw ndax man jàpp naa ne carte bi ni ni sorul biir ni mel ci Touba amul courant amul ndox am naa lu ma métti trop ginnaaw ñu jógee ci parti bi ngeen nekk ñëw ci parti pouvoir lépp lu ci man incha allah des na ko de na dàq yoon mu leen dàq président dàq leen ndax noo jël àllu askan wi dugal ko foo xam ne nii eh, kenn xamul fu ñu ko dugal bi leen di yoon dàq ci élection yi ñoom ñu ne nag dañu yàq loolu may dénoncé ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci njàmbaram ci liggéeyam mu taxaw ci bu baax direction yi jaar fi mu war a ndax euh, ku jël àll réew mi yoon moo ñu ne dañu cee sant yàlla kenn ko xam jël nga àll réew waral ñoom jigéen élection yi ñu leen xam ne dañu leen yàq élection yi te loolu moom ñu ko wax ministre intérieur bu baax mu taxaw ci élection yi jaar ci yoon. ku leen yoon moo leen seppi. ndax ñoom seen loxo dafa takk ku sa loxo takk nag yoon dañu képp ku sa takk doo dugg élection yi kon ñoom seppuñ leen yoon ma leen kon nag xam ne kon juróomi yi dem ñoom la ñoom la seen loxo seetagul jël na sax nag na ñoo xam ne xam naa kon jàppar ak seen i mbir waaye daal koo xam ne moom yoon neen sa loxo takk na moom élection yi doo ci bokk. ñëwoon fii fi Thiawéne fekk fi ñoo xam ne ni ngi bokkoon si beneen parti opposition bi nekkoon PDS ku si mel ne soxna Ami Ñing jiite leen ak Youssouf ak chef de quartier bi Baye Assane Gueye def nañ déclaration déclaration moy désormais à partir d'aujourd'hui dañuy accompagner Soxna mam Say tout simplement pour la élection du président Macky le soir du 24 février au premier tour elle est noble ni ko tubaab di waxe parce que tout simplement elle parle la réalité day wax lu nga xamné mo nek ci mom du nax kenn mo waral ñi ne opposition bu nous té ñu bari ñëw fi di len nax di len nax ñun soxna maam say Mbàkke moo nu day ni ànd ak moom te loolu lu koy firndeel mooy démb lan gisanteek moom même pas 24 heures ndaje mi am imagineel kon lii bu fekkoon lu nu waajaloon la préparé ko neneen ak mbooloo bu nu fekk fii kon nga xam ne soxna maam say Mbàkke elle est en train de travailler en discrétion liggéey bu muy liggéey si secret la koy defee te loolu aajoo na président de la république xam ko ñëpp xam ko ndax tey jii xoolal addition d'eau yu xam ne mu ngi koy def.